nawet ak defar pneu nek activité bo xamné mën nañ né da fay dox suñ sukkandiko nak ci vulcanisateur bi mom néna liko dalé ci suba ba keroog muy guddii dañuy liggéey léeg-léeg sax auto yi dañuy ñëw rang amuñ ci samedi ak dimanche ba yëpp la ñuy liggéey. ñu né ñu ngi fi ba 0h 8h fi lañuy fekk ba minuit am na ñu fi né ñuy xey dina bëri de presque ay dina mat ay 50 30 de normalement. waaw. même Tubles yi aussi. Tubles Sambra yëpp moment bi Tubles moo ëpp li muy peer ndax Tubles bu fekkee ko suuf si dafa dugg si côté rek day peer moo tax instant toll nii Tubles la ñu ëpp li ñuy defar. amul pneu chambrayère wala Tubles yëpp ay paan li ko waral lii la. instant moom ak taw mi bi pneu li muy crevé day bëri quoi. ndax bu tawee lépp lépp li ne woon si suuf yëpp ay génn moment bi ñu nii di nga gis pneu yu prévu noonu la dina bëri moom waaw comme li si ni ay ponta ay genre xeer yu sew yooyu noonu day dugg si pneu yi te bu duggee day day bënn pneu yi quoi loolu mooy waral muy peer a ah, suuf si di dugg si pneu yi si côté day peer loolu loolu moo waral côté yi di peer chaque jour. ba tey tamit vilcanisateur bi am xam-xam ci wàllum defar lii di deux bokk na ci velo bi ñu fekk mu sëgg VTT bi moom mu ngi koy defar boobu ba léegi nee na sax yemb na. yooyu moom am tool nii buy daw piñon yi day yaaxu na buy daw taw mi ni ndox mi ni mu koy laalee noonu en général day waral piñon bi day taxaw du rouleeti quoi loolu moo tax mu yaaxu. velo bi li moo yaaxoon pile bi moom lañ doon defar quoi moo waral mu. yàggal nii rek mais paan boobu garaawul géré nañ ko. defarum pneu nekk nag ak traite ci nawet mu nekk activité boo xamante ne daanaka mun nañ ne ñii di ouvrier yi ñoom dañ ciy gis seen bopp ndax ñii di clients yi bés bu yàlla sàkk dañuy paan te suñu paanee nag ñoom li nga xam ne defar seen woto mooy nekk seen yiite